samp Serigne Bara mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Sisas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro Modou Lamine Modou Lamine Mbacké jaraway Mustafa ko ci gis muy Bamba baar bilaay baay Basiro Serigne Basiru baar ay mamam koy gay baar Basiiru baaray maamam Sëriñ Basiiru baaray maamam wax leen Basiiru baaray maamam Sëriñ Mustafa Lakram Sëriñ Basiiru baaray maam Sëriñ Basiiru baaray maamam Sëriñ Mustafa Lakram Sëriñ salaamaaleykum mbokki julli di rawatina mbokki taalibe yi bu ngeen xoolee wàccaay wi nga xamante ne moom la ñuy waajal la grande journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké xam ne daanaka bis bi yegg si na samedi bii ñu jëm lay doon mooy le 25 novembre incha allahu rabbi fii ci CICES nag lay xewee ko xool siège yi nii ñu ko rangele xool baas bi dégg njàngum xaside yii xam ne fii ñu jëm daanaka yegg si nañu fa mooy samedi bii ñu jëm incha allah a partir de huit heures lay commencé ku yéex do am place ndax amul ay carte entrée libre la waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamante ne coordinateur bi teel naa waajal li nga xam ne mooy bâche bi teel naa waajal li nga xam ne mooy organisation bi ngir lépp teel a yemb waaye Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Khady Awa Ba gaynde baara jëf ji rëy na lool waaye liggéey bi am na solo lool ndax comité de pilotage bi nga àndal muy liggéey bu rëy bi ñu ànd ak yow di ko liggéey di ko xool gis xam ne nii ñu ko waaje nii rek la baaxee ndax ku xool bi xool na siis yi xool bâche bi ndéggum njàngum xaside yi xam ne daanaka bis bi yegg si na ci Mourtala Tawfekh Production yaakaar naa ne bis bii ñu jëm muy bis Cheikh mit Lamine Bara samedi lay doon ku yéex yaakaar naa doom place na gars yi teel a ñëw teel a génn ñëw dugg ci biir bâche bi ndax amul carte te nag ku ñëw rek da ngay dugg ku ñëw dugg la amul carte dama bëgg insister pour ñu xam ne bisub Cheikh Mamadou Lamine Baara amul carte te sëñ Baara nag ku ne dégg na woy wiñ ko woy sëñ Baara faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax mu ne waaw day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi kon ku bëgg sa aajo faju ñëwal ci bis Cheikh Mamadou Lamine Bara mu faj suñuy aajo ñun ñëpp ci barke Cheikh Ahmadou Khadim kon bis baa ngoog le 25 novembre incha Serigne Cheikh Mbacke Dia. waaw oh, Alaaji Seydou jërëjëf bis bi ñëpp xam nañu tàmbali na la Mourtala bég nañu lool noo ngi ci bis bi nga xam ne sëñ moom la ñuy waaj muy le 25 novembre suñu critère Cheikh Mamadou Lamine Bara waaye bis bi tàmbali na. ndax fu nekk bokk jullit yi ñu ngi fay jógee di ànd bis bi ku ñëw nag gis nii baas bi demee xam ne lépp tàmbali na Serigne bi nag da koo tàmbalee ci alquran ak xasaay ndax alquran mooy lépp ku xam Serigne Baara mi ngi defal bisam bi xam yitteem ci alquran xasida yi nga xamante ni sëñ Baara bind na ko dafa méngoo alquran Serigne Baara taalib na téere yu mag ci Riyaana ak Saad Labraari ak mun yaana kooku mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. léppam xam-xam la borom yaa hadiyan borom hadaytani yaa hadiyan alamtani saqaytani kasa safa rabbaytani ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jël ñoo xam ne dafa na ren ñooy samay invité d'honneur ku mel ne Serigne Mahmoudan moom Cheikh Abdoulat ubaydi rabbi wa ibni cheikhi Cheikh Abdoulat ak kii nga xam ne mooy Serigne Moustapha Lakaram moom Serigne Abdou Lakaram jàmbaari Cheikhul Khadim ak kii nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni généralu Cheikhul Khadim ak kan Serigne Sidi Ahmed moom Alaaji Abdoul Aziz Sy daa baax mu Sida Sy Malick ak kan suñu xalifa mu baax mi moom Baye Niass ñooñu la wax ne ñooy samay invité d'honneur kon bis bi yaakaar naa ne Tivaouane moo ngi waaj Ndiassane ñoo ngi waaj waaye ah ah ñoo ngi waaj laayeen yaa ngi waaj waaye yoonu murid ñëpp ndax bis bi bis Cheikh Mamadou Lamine Bara te bis Cheikh Mamadou Lamine Bara mooy bis ya rabbana inal wara tadarahu li awliyaay kamal lesno ya rabbana inal wara tadarahu إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجلنا لطفا وأمدا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفنات تعرف نتير مكتبينا سعادة الأبرار ومنور البنيان taalim la diiru yu maktabinaaw saadatul abraaru ak munawirul bunyaan sakku ku mel ni Mama Njaay bunyaana muy jooro sakku ni Mama Njaay bunyaana muy jooru bisu fanaane jàng gaaya waaru sakku ni Mama Njaay bunyaana muy jooro Serigne Bara fanaane jàng gaay waaro ay sëriñ Bara Mbakke amoo morom ci soodaan amoo morom ci bi daan sëriñ Bara yaay la miinam xarnu bee sëriñ Bara Seydou waay taalif na téere yu mag muy tibyaan mun naa wérul bun yaan xës dëgg Cheikh Mamadou Lamine la taalif na téere yu mag tibyaan saad ak bun ak yeneen téere yoo xam ne xamuñ ko yoo xam ne sëñ Bara moo ko taalif muy busraak yaa ardi Touba léegi maam Cheikh ma barki démb la ma ko jox busraak yaa ardi Touba ak leneen leneen yoo xam ne lépp sëñ Baara moo ko taalif képp koo xam ne nag jàng nga tuuti boo xoolee taalifi sëñ Baara dafa nuroog taalif te taalifi Cheikhul Xadim waaye jàngal Munawwir Bunyaan Alaaji Seydou kon daal Cheikh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 programme bi national international